Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf Sénégal ak Côte d'Ivoire tey la football tey jii la góom di way dët subaam way deret yéen a kaay yi jël bal bi teg ci suuf te di ko paasante mboolem journal yëpp xëy nañu ci wàllu tàggat yaram ubbi leen observateur ab laaj la xëyee ndax yàlla sénégalais la journal bi boole kook nataalub Cheikhou Kouyaté di kenn ci footballkat yi gaynde yi mu jël loxo yi tàllal ca kaw mel ne ku ñaan yàlla baa ko koy sant Papis Demba Cissé mi capitaine gaynde yi nañ ci journal bi fi mu ko lan rek lañ génne mooy ngeen ñeme ko lool stade yéen ne ko en askanu yëpp a ngi toog di xaar ngir gayndee Sénégal yi defal leen lu rëy lu rëy li ñu bëgg wal fajir sport ne ñu moo di ndam on des éléphants noonu la ko journal bi xëy waxee libération ne ko waaye du yomb ndax matsub Sénégal ak Côte d'Ivoire max la ci max yi max la bu spécial Sud Quotidien ne ko la ko tax a sax moo di gayndee Sénégal yi fi nekk ni dañoo munta yëngu fenn mu jug taxaw di séentu ñaari but ngir seen mbégte ñaari but yooyee Le Quotidien moom la gayndee Sénégal yi soxla faaw gayndee dañuy ëppale Côte d'Ivoire ñaari but ngir mën a bokk ca Coupe d'Afrique 2013 gay am ci Afrique du Sud ank dina kay ne leen lu mën a nekk la nañ ci xutti seen tànk tubay ki xotti tareet fa ñu bindoon France Afrique di François Hollande mboolem yéen kay ñu xëyandool xëy nañu ci moom doore kook observateur mi ak ñun xeetu koppar yi réewum France dimbale Sénégal ana lan moo tax ñu ful ko François Hollande tontu na ci démb ca janoom bak député assemblée nationale lenn lu mu yëkkati ci kàddu la Soleil xëy na ci dikk ak ñun moo di lu mu yàgg-yàgg àdduna bi yépp Afrique la ñu jëm si ne wàllu koom ci àdduna bi ëllëg gi mi ngi Afrique direct info nañu François Hollande ñëwam gi ci Sénégal baax na ci ndax toj-toj bi Nicolas Sarkozy defoon ci Ndakaaru François Hollande faase na ko Sud Quotidien ne ko yàmmu ca ñi feeñ le rek waaye borom toj-toj yi ñoo ngi làqatuy leen réew mi yéene kaay gouvernement Abdoul mbay bi am na ci ministre boo xam ne directeur de cabinet la mu def na la ko yàlla nëbb benn xale bu jigéen bu fettagul ci nen toll ci fukkeet ak juróom-ñaar maanaam 17 ans moom la waa ji ëmbal réew mi quotidien yamu ca ndax nee na waa ji mi ngi def kémta lay kàttanam ngir sàkku ci njaboot gi ñu nëpp nëppal yëf yi ba du jëm kaw